suñu mbokk internet yi dal leen ak jàmm fii ci Pikine fi nag lu yéeme moo fi am ndax benn oto la mécanicien yi doon ñu réparé ba koy essayé bi ñu koy essayé nag ci la oto bi di daw ba commencé tàkk ci suuf ci noonu ci lu ñu jugee génn bëgg ko fay oto bi nag daal di ëpp loxo. waaw man damaa nekkoon côté bële di ñëw léegi ci laa jékki-jékki gis waa ji oto bi di daw di ñëw léegi bi muy daw di ñëw ci diggante bi ci lañ jékki-jékki xale yi ne ko oto bi mi ngi mi ngi suufee bi muy wàcc oto bi pour jéem a fay oto bi ci la oto bi tàkkee léegi waa daal di daw jaar nii population ba ñu dëkkoon ca boor yëpp daal di génn ku ci nekk li nga mën nga def ko waaye terewul oto bi daal di tàkk rek jëppat li gën a metti nag mooy ñoom nee nañu woo nañ sapeur toog lu tolloo 40 minutes mënuñoo fexe ba ñëw mais man maa ngi woon place am muy essayé oto bi yaa ngi dégg man ma toog toog affaire yi xaw a yàgg ñu ne ma am na benn oto tàkk fii sama xel dem ci loolu mais jëpp bi ma ko waxee yàgg na mais sapeur moo deful liggéeyam parce que bu defoon liggéeyam oto bi du tàkk bu fekkoon def na liggéeyam oto bi tàkk parce que tàkk na lu mat Euh, parce que xaar na leen lu mat lu mat 30 minutes ay ay 40 minutes ñëwuñu bu defoon seen liggéey oto bi du tàkk waaw ah, ñoom ñoo deful seen liggéey rek. koo sapeur ba sonn mais sapeur bi ñuy ñëw presque fekk na benn waaju dëkk fi ñoom Alaaji Njaay xale góoru koñ bi ñëpp dajaloo. Ah, di fay oto bi kuy laajte faali ngoye ngi yile sapeur pompier daal dinañuy ñëw waaye laata ñu yegg si day bile oto daal dinay tàkk ba jeex tàkk leen nañu ni oto bi kat kii di Serigne moo Niang nekk promoteur moo ko moom suñu mbokk internet yi lii leen indiloon ci Pikine c'est TV Fatou Warkha Sam